màggalu daaru salaam ci niñ ko waxee léegi mooy fukk sëñ Touba daaru salaam ca bu mu jógee ci tukki bi euh, loolu nag day lu yàgg a yàgg yàgg manees naa wax ni màggal yëpp moo ci jiitu ndax booba sëñ gaawaan ba mu ñëwee sëriñ bi euh, ganale na ko mu juróom-ñaari fan wala lu ko ci ay beer la ak yëpp kon nag moo tax sëñ bi xam ne màggal gi ci màggal yi fi jiitu la te yi gën a yi gën a yi ci yoonu mu la te màggal gi mu ne si ne daal Saam donc moom ndax mu yëpp a ko bokk ndax bis boobu bis boobu mu tàmbalee moo waral loolu moo tax nag euh, sëñ bi bëgg rek euh, ñépp gën koo fonk te gën a gën koo jox daya bi nga xam moom moom la war a am ah tey soññ taalibe yi di leen ko soññ ndax ñu gën a fonk màggal gi ñoom itam fu waaye mën a nekk moo xam yaa ngi ci biir réew mi moo xam yaa nga bitim réew ñu soñ ñëpp di ko yëgal bokk yi itam ci ki nga xam ne ci bokk yëpp ñoo xam ne ñoo ñoo bokk mag daal sax ñu ngi leen ko yëgal ñoom ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp tey bëgg rek ñu gën ko fonk baax a baax tey euh, li wax léegi fii muy yoon itam ñu ngi ñaan sëfoor ñoom it ñu def ndànk tey ànd ko yar ànd ko teggi ba mën a indi nii delloo si leen ci jàmm ñu koy sàkk bu baax a baax ak yoonu itam nuñ ko wax léegi itam képp wax ne yaa ngi ci yoon itam nga mën leen defal facilité bañ mën a ñëw ci màggal gi delluwaat ci jàmm waaw sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax daanaka liñ bëgg a wax lépp wax nañ ko tey waaye mooy bëgg rek ñu fonk màggal gi jox ko dayoom ba lépp luñ ci yaakaar rek mën ko am ci niñ ko bëggee waaw tey sant na gouverneur te di ko ñaan rek li ñu wax rek mën ñu taxawal baax a ci ndigalul sëñ bi ñu ngi ñaan suñu borom kàttan leen ba lépp loo xam yéene nañ ko ci bés bi suñu borom may ko ñu mën ko motale duñu si soxla màggal gi muy màggalu daaru salaam yu ci bari li nga si mooy ci yoonu murit wax na ci yow bari la ci yoon yoonu kon dina tax ñu gën a fonkaat bés bi euh, rawatina nag bi nga xam ne suñuy kilifa dañuy sant toujours ci bés yi ñu gunge comité d'organisation yi euh, dëgg la wax ngeen ko monsieur le wax na ko régime bu bees moo am waaye comme ni ñu ko xamee rek état c'est continuité maanaam doomu aadama yi dañuy wutante ci bëri na ñuy toog rek mais li ci ëpp solo rek mooy fexe ba lépp loo xam ne taxawaay la rek ñu jëm cee góorgóorlu ànd ko kilifa yu bees yi nga xam ne suñ borom moo leen teg ci boobu boobu réew euh, ba tax na lu ñu waxtaan yépp rek muy ay secteurs yoo xam mënul ñàkk ci wàccaayu boo xam ay mbooloo ay dañ fay daje ñu mën koo tënk ci ay yu bari ci walu wér-gu-yaram ak set li ci ëpp solo mooy poste avancé yi ngeen wax ngeen ko ci muy juróom-benn waaye ñu war koo gunge ak ay ambulance ak ay garab yu doy donc loolu foog naa direction régionale de santé jël na note te incha allah rabi dina xool nan lañ koy mën a sampe ci biir Daaru salam boobu wàllu service d'hygiène donc ñoom yàgg nañ di def lu mel noonu muy désinfection ay kër lim bi toll si juróom-ñetti fukk ak téeméer ñu war ko lëkkaloo également ak maire commune Mbàkke bi nga xam ne daaw également ci CRD bi ci na engagement pour gunge service te incha allah rabi ren it naa dina am taxawaay boobu ci wàllu ndox nag foo naa ne euh, mu am loo xam ne état du Sénégal aussi def na ko fa muy xëcc ndox mu neex jële ko Sadio ba indi ko Mbàkke ba tax na moo tax demande yi foo naa seen oo wax na ko demande yi xaw na bari waaye dañuy ñaan rek euh, seen oo ñu def quand même benn euh, comité pour accélérer. quand même yi ba balaa maagul daal sam lépp loo xam ne mën nañ koo vider si ay demande de compteur ñu def si wàllu également potance bi foo naa ne jël na ndogal tamit dinañ ko teg ci camion yi nga xam ne offort dañ leen ko daagaan ci limu fukk war na ko indi pour accompagner euh, population yi ci wàllu ndox naam zone Sen'Eau la waaye offort également dans dans le cadre si état benn bopp la dinañ xool nan lay mën a accompagner ci wàllu ravitaillement waaye lépp aussi engagement ak euh, matuwaay bi ñu jël ñuy service Nous ñu matale ko le 24 mai c'est-à-dire ñetti fan balaa màggal ndax door activités yoo xam su tàmbalee liggéey bi day indi jafe-jafe maanaam ci assainissement déplacement bi mun indi jafe-jafe donc désinfection également muy CBDD on dit une semaine avant buñ nañ loolu lépp loo xam ne day indi euh, jafe-jafe ci dem beeg dikk bi wala opération bi jafe pour ñu def ko ah ñu ngi leen di ñaan ngeen terminer ko balaa la 24 mai incha allah rabbi donc loolu foog naa ne mooy échéance bi nga xam moom la ñuy fixé à chaque service bi nga xam ne war na dugal loxoom ci biir euh, biir màggal bi